Thank you. Nous avons foi et confiance en notre président de la République, qui, à d'autres circonstances, a montré qu'il était un dirigeant de haut niveau au niveau international. Ce qu'on lui demande, c'est d'être dirigeant. Pour benn sikki sakk que Sénégal ñàkkul ay nit amul sikki sàkka que Sénégal am na njiit yu nga xam ne ji